xam nga li donc ce pays là véritablement dama jàpp ni beaucoup de gens ont moo tax te tamit mu am facilité bi nga xam ne nit ñi il faut librement ce qu'ils veulent kenn du ma wax par exemple que ci période bii nii tout le monde xamuñu yëguñu ni que ay milliards ñu ngi circuler ci réew mi. pour milliards. pour ay politique. ah bon ñun de gisuñu ko. ah mobilisation yi ngeen di gis parrainage yi ngeen di dégg gars yi ngeen def gis ni tout d'un coup rek seen seen seen i seen i <laughs> nu mu tuddati clés clé USB daw d'ailleurs d'ailleurs cette histoire. <laughs> mais parenthèse par parenthèse mais mais gis ngeen. c'est la deuxième fois. ay <laughs> c'est l'affaire de Matam qui se. qui se qui se qui, qui se, reproduit. mais donc mais mais mais loolu may mun a quand même nous tous nous devons taxaw vent debout. ni que lu ñu xeex ñun parce que dafa am ñu ñu tëj am ñu ñu gàllankoor am ñu ci dee pour que démocratie sénégalaise yegg si fii nii mais ñu naan la clé USB yi non dem na waaye ñi àndoon ak moom ñëpp dem nañu rejoindre fële. mais ça c'est les ce sont les mœurs politiques. mais qu'est-ce qui se cache derrière les mœurs <laughs> politiques mais ce sont les hommes politiques. non de dama ne qu'est-ce qui se lu tax ñu tuddee ko transhumance. <laughs> président Macky Sall ne woon bu kenn wax transhumance parce que nit ki du du comme xar boo xam ne fii day fii day bekkoor mu dem nooraane ji fële wala dem euh, euh, ñu koy kii fële qu'est-ce qui explique c'est l'argent dañu waxante dëgg par parenthèse bon moi je suis un peu euh, ci affaire clé USB ah parce que jàpp naa ni affaire système de parrainage nag boo ko yoree aussi. am na ay xanaa Mame Boye Diao ne peut pas boo demul ci kii bi sax. ci ci ci internet bi. c'est un coup politique en fait. bon mais parenthèse rek laa doon wax pour won la ni ni que <laughs> gis nañ fi l'affaire de Matam ça s'est terminé où je dis souvent waa jooju dañ ko waroon gis pale de justice pour mu expliquer fan la jaaroon ak parrainage jàmbur yeeg yooyu ñu gis ko palais de la république. fan la jaaroon liste liste liste yi. jàmbur yi.